bëri na ci contrôle technique yi accident yu bëri yi tamit yi ku mu tiitalul yóbbu na saw fit te kuy waxal yàlla xam ne woto yu bëri ci tali bi amuñu kayit RFM de càmbar contrôle technique yi expertise woto yi di dalal ci Yaya nyan, mooy chef du bureau supervision du contrôle technique beaucoup ci ministère des transports terrestres feggoo ci waxtaan bi ak président bourevas regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal de Kourel gi mécanicien réew mi ECODEV aljuma 17h10 ci RFM ak Abdoulaye Cissé si on garde on est tous obligés de garder hein. bon jërëjëf merci Lamine Sow jërëjëf mbokk yi dal leen jàmm ci suñu jotaay ECODEV ñu fas yéene waxtaanee tey loo xamante ne ah, lu dab actualité la waye lu fi nek la ci jamono bu ne ndax amul jamono bo xam ni duñuy wara ñuy transport ndax gis ngeen situation bi Sénégal nek sax feebar bi nga xam ni mo moo lëmbee nek fi ci biir réew mi bi ko lu bari ci transport la ñu ko bëggoon jaarale ndax njortoon ni xëy na doomu jàngoro ji transport bokk na ci li koy gën a wasaare. kon maîtriser transport solo bi mu am gën naa feeñ ci situation wu jàngoro bi nga xam ne nii ci la ñu nekk bu dul maîtriser bi sax ci wàllu circuler di yóbbu doomu jàngoro ji waaye maîtrise ci wàllu sécurité ba tax actualité daf ñu xew-xew bi nga xam ni moo xew barki démboo njaay oto daw. ba roñ ay nit aki i munul mënul taxaw borom oto ba dégg nañ ko tey ci li mu wax ci lu yéenekaay yi jottali ci procès verbal ci buñ koy déglu mu ne am na ko ko bert fëll mu koy moytu moom borom camion bi lamb frein yi fekku fa dara oto boo xam ay tonne la yab béton ba fess di daw xëy vitesse bu ëpp la ñu war daw ci dëkk waaye lamb frein fekkoo fa dara ci camion bu yàpp loolu sax day yokk vitesse bi ndax eh, vitesse boobu la mu yàpp peut-être day yokk sax ci saaraan bi bu dal ci kaw nit dal ci oto diri ko diri ko diri ko ba sës ko ba mboxoñe ko ñaari nit ñàkk ci seen bakkan muy ñetti nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñuy masawu njaboot ya nga xam ne ñoo am tiis boobu la mais tiis su Sénégal yëpp la ndax xeetu accident yu mel nii bu amee xol yëppay tooy nit ñi léeg-léeg jàppee ko ni chauffeur si ñëw texet waaye nag circonstance accident boobu wone na ni du ci texetu nit ñi rek léeg-léeg matériel bi ñuy yor la moom ci boppam ndax li mu feeñal it mooy oto boobu visite technique amu ko ba mu fa gëjee presque mat na at pourtant ma ngay daw tegu ci tali bi di nekk sax ci service di yeb ay bagage ñoo mbégte loolu di fi dalal ñoo xam ne yeyoo nañu gindi ñu ci bu weesoo fee boobu ndax bëgguñoo taxaw ci boobu rek dañ ko bëgg a yaatal waxtaan globalement ñu yaakaar ni mën nañ ñoo gindi ba Sénégal mën a jëm ci transport bu mucc ayib boo xam ne nii xel dana ci dal ndax dañoo jógee ay moyens de transport yu moderne président de la république di def te TER bi di def BRT yooyu yëpp xeetu transport yu moderne la waaye yi nekk ci wet gi di ay transport yu connexe ndax nit ñuy jël TER bi di jël BRT bi xëy na feneen fa ñuy jóge pour ñëw yeneen i transport la ñuy jël loolu yëpp ñu war ko waxtaanee tey am mbégte di fi dalal sëriñ bi di yahya ñang yahya doo gan ci émission bi ñëwoon nga fi ci jamono dellu nga fi ñu am mbégte loolu di la dalal nga jiite lépp lu jëm ci wàllu suivi contrôle technique ca centre de contrôle technique bi bokk ci ministère des transports ñu ngi lay dalal jam Yaxya merci Abdoulaye maa ngi lay gërëm di la sant di euh, rafetlu vraiment invitation bi euh, di waa di nuyu auditeur RFM yëpp euh, di euh, commencer par Dialé vraiment comme li nga wax euh, li xew barki dem euh, ci ministre des transports terrestres des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement maître El Hadj Omar Youm ñoo ngi vraiment jaale Sénégal yëpp jaale njaboot bi vraiment di di di di di la sant de la gërëm. jërëjëf yaa kii sama càmmoñ nag li ko boole ci waxtaan wi dañoo yaakaar ni taqale beeg defar beeg yëpp ñoom la bu jagee ñoom la bu jagul ñoom la muy regroupement des vrais artisans ci gàttal rek sañ naa ne mécaniciens yi ndax ñoom lañ ci gën a ràññee Ali Sow président Revas maa ngi lay dalal jàmm. waaw Abdoulaye maa ngi lay fay di nuyu vraiment sama collègue bi nekk fii di nuyu sénégalais yëpp di nuyu waa Revas yëpp képp kuy mécanicien ci Sénégal maa ngi lay nuyu. di nuyu tamit euh, vraiment waa aftu yëpp ndax euh, man dama bokk ci ñaari côté. dama nekk président mécanicien yi ba pare nekk opérateur économique nekk ci Jeune AFTU waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu président Mbaye Amar. ndek yaa ndeke cumulaar yi du ci politiciens yi rek. yaa mu ngi ci Revas mu ngi ci transporteurs yi. Euh, euh, Revas regroupement des vrais artisans mënoo leen woon yem ci artisan rek dafa am ay vrai ak foo artisan automobile waaw xam ñan ngeen ci jublu. xam nga bu njëkk dafa am ñoo xam ne du ñu pratiquer métier bi. Mhm. dañuy dem yi. Mhm. ci yenn instance yi mhm. ndax euh, ñun liggéey rek lañu xam xam nga nit ki nga xamante ni chaque jour mi ngi liggéey daanul am jotu di dem mais dafa daan am ñoo xam ne dañ daan ñëw comprendre secteur bi yor seeni saak di dem di doxal artisan yi moo tax ñu indi regroupement des vrai képp koo xamante ni yow nekkuloo acteur boo xamante ni yaa ngi ci terrain bi di liggéey doo diriger mouvement bi loolu moo indi vrai bi ak faux bi. daañu ci ñëw léegi Yaya ñu taxaw njëkk ci fee bi ah bu ngeen déggee ni oto bi nga xam ne def na accident jaar na ci yéen boobaak léegi-léegi mu mat at cest à ban sentiment moo leen di animé ci oto boo xam ne nii def ngeen li leen war recalé ngeen ko parce que amul xëy na sax njort bi ngeen amoon mu mujj feeñ loolu dafay mel ni aussi euh, day wane ni contrôle technique am na njëriñ te ñu ngi koy teg ci yoon ndax oto boobu li nga xam ne ni moo feeñ ci moom gisoon ngeen ko ba mu fa mujjee ñëw te defaru ko mu ngi ci tali bu ngeen déggee ni non la demee ban sentiment mo leen di euh bon Ablaye sentiment bu ñu animé moy que sentiment bu animé ñep ndax euh, ñak bakkan mom ci tali euh, surtout ci tali dans dans la mesure où ci euh, contrôle technique la wax ci ministère des infrastructures loolu mom sentiment vraiment naqaru la wa mais comme li ma wax sank rek ñu ñaan yalla vraiment xaare len aljanna wax nga ko sank ci sa bir wax contrôle technique dafa am njëriñ am njariñ boobu moo tax ñu légiféré ko maanaam contrôle technique euh, règle dañ ko réglementé ci code de la route la jógee léegi euh, depuis 2012 ba léegi dañoo sukkandikoo ci directive IEMOA maanaam euh, tous les pays de l'IEMOA mhm. pour que dans tous les pays ñu def ay centre de contrôle technique moderne boo déggee centre de contrôle technique moderne mooy que dañuy def ay équipement de dernière génération maanaam ñu mun a saytu oto bi tous les organes euh, c'est vrai que wax nga ko euh, am na njëriñ loolu wane na ko statistiques yu bari wane na ko. Euh, accident bu xew kérok manam auto bobu wane na ko parce que wax nga ko sank effectivement bi lolu amé bi ñu xolé ci suñu base de données effectivement gis nañ ko auto bi jaar na fa. jaar na fa pour la première bu njëkk dafa gëj 2018 manam tok na 2019 yëpp ñewul def visite technique mais ñëwaat na ci début année 2020 bi le 7 janvier 2020 ci la ñëw def contrôle technique am conformément à la procédure mhm. bien évidemment maintenant bi ko xoolee parce que ay camions, la camions cam camion nag bu jaaree ci centre bi dafa am ay ligne dédiée manam yi ay PLL PL le poids lourd ñoo mhm. fay jaar bi conformément ak texte yu ñu mettre en rapport parce que dafa am ben arrêté depuis biñu mettre en place le contrôle technique moderne au Sénégal dafa am ben arrêté buy définir loolu arrêté bob arrêté 77 33 moom définir pour lu modalité de mise en œuvre du contrôle technique moderne loolu yépp je euh, day définir nombre de points yi nan la wara xoré auto yi. Mhm. fan la wara jaar bref bi fa jaaré xol nañu auto bi saytu nañ ko gis nañu que manam globalement frein yi dafa am ay taux limite auto bu définir ay ñu yu il faut que moi, am au delà de 40 de cent euh, il faut qu'on au-delà de 40 d'efficacité de freinage bi fait fa ñëwee amul de oto bi ñetti essieu la essieu bu nekk dafa am ay roue roue bu nekk bu globalisée, ko globaliser 40 pour cent léegi Si moins de 40 on cent visiter. visite technique parce que dafa am ay famille de contrôle ci famille a un élément de freinage un élément indispensable. Un élément de sécurité élément de sécurité. Mhm. c'est pourquoi nous limitons à un taux taux boobu dañ ko réglementé a xoolee taux au Sénégal moom moo gën

ñu gis ne par rapport ak suñu catégorie auto yu fi daw parce que loo gis da nga koy da nga koy sénégaliser nga adapté ko euh, suivant parc automobile bi nga yor parc yi nag dafa am ay catégorie am ay oto yu ndaw auto yu mag ay camion ainsi de suite dañoo camions ñu ne camion pour que vraiment mu daw ci sécurité mhm. respectant les normes de sécurité ci système de freinage la limite c'est au-delà c'est 40 mhm. pour cent mënul wàcc 40 mënul wàcc boo wàccee 40 pour cent rek dañ la naan sëriñ bi demal defar ko ba pare sogo a ñëwaat. nga ñëwaat am boo ñëwaatee ñu xool. ñu xool liñ la waxoon baaxul ñu jaaraat ko ci machine boobu maanaam ci circuit de freinage bi dafa am ay ban. Ban yooyu moo ñuy permettre ñu xool système de freinage bi. alors bi mu ñëwee le 7 nee naa la dañ ko dàq ci loolu ñu ne ko demal defar. Mhm. alors mu ñëwaat le 14 janvier. pratiquement une semaine après une semaine après. bi mu ñëwaatee ñu ne sëñ bi li nga liñ la waxoon le 7 janvier ba léegi. matul matul. delluwaatal ci sa mécanicien mu xool la infusud et ñu définir ko wax nañ ko sax fi problème di di am parce que camion boobu berlier la modèle compresseur la ay air mm-hmm. Mm-hmm. donc bu fekkente ne air bi deyul doo am 40 pour cent taux ñu joxaat ko contre visite PV de contre visite ñu ne ko demal defar alors ma rappelé contre visite délai bi un mois la mm-hmm. un mois maanaam dañ lay jox un mois pour que le temps que nga gis sa mécanicien pour réparer pour bañ a paraparaayu. te sax un mois boobu baax na ñu taxaw fa. bu ah. dee ci oto la boo xam ci service la nekk. du pour un mois boobu nga nekk ci di continuer c'est-à-dire un mois la boo xam ne am nga ci temps pour defar ko. alors li ci gën nag mooy nga defar ko dellu. alors damay préciser. Mhm. contre visite. maa ngi ñëw Ali. contre visite ci défaut grave. Mhm. code de la route dafa clair. dafa clair amoo droit circuler. un véhicule en contre visite défaut grave amoo droit circuler. moins de 40 ku léegi léegi situation oto ci moins de 40 est-ce que défaut grave la wala bokk. défaut grave la. d'accord maanaam amoo valeur normale. tu n'as pas les points day mel examen nga dem boo mes points yi tu es admis c'est la même chose donc point bu si si système de freinage admis le taux global c'est 40 la hmm. limite comme amu ko mënul jàll. alors il faut que mu dem réparer boo demee réparé nag mécanicien yi xam nañ ko sama nijaay Ali maa ngi nuyu au passage. non mais ñoom daf mel ni dinaa ñëw foofu ak. léegi nag ah, moom un mois bi délai un mois bi maanaam amoon na du 7 janvier bi mu ñëwee ba le 6 février depuis le 14 janvier. waa ji ñëwaat c'est-à-dire bi mu ñëwaatee ba ngeen délai sax bi ko joxoon ah. pour que mu ñëwaat bu ñëwaatee ñu xool point boobu bu ko de bu bu bu bu bu baaxee ñu jox visite technique am ñëwaatul depuis lors alors et muy continuer di di daw. Mm-hmm. et ce qui est anormal parce que wax nañ ko bind procès verbal c'est le temps juste de réparation nga dem ci mécanicien réparé a droit di ci droit parce que la réglementation elle est très claire sur ce domaine là. Ali président Revas tu as rek mécanicien yi gis nga euh, wax y mhm. mel camion defar li ñu ko recalé. ndax recalé mhm. nañu ko une mhm. semaine après mu ñëwaat. donc jaar na ci mécanicien ci njort bu gàtt bu ñu mën a am. Mhm. est-ce que wax dëgg fa yàlla mécanicien yi. yi ñu am fii. dinañu dégg daaj. ci contrôle technique bu ñu fa recalé nit ci ne ko lii ak lii ak lii nga war a jubbanti. ñu dégg daaj bi ba mën ko jubbanti loolu ci anam yi mu waree. ba bu delloo. ñu accepté ko parce que dellu si war na accepté wuñ ko xëy na jaar na ci mécanicien xëy na mécanicien bi moo déggul daaj. Mhm. waaw euh, Abdoulaye. Mhm. di di dellu ginnaaw. ñun du ñu ñëw kanam dañuy dellu ginnaaw ci loo xam ne ñu ngi ko doon rappelé ñun dañu participer ci centre bi. Mhm. jàpp ci pour mu ubbi def ci ay combat di dépanner ay oto ci instance yu gën a metti ci Sénégal mooy ay maggal ay gàmmu. màggal gi passé ñu ngi dépanner 1114 véhicules mais dañuy def rapport yobu ci centre bi yobu ministère yobu fep won leen li ëpp li auto yi di panne pour ñu xam ko. Hmm. du mécanicien yi mécanicien xam nga lu mu mën nga ñëw mu xol li ngay panne mu wax la ko nga dem jënd ko mu monteel la ko xam nga centre bi dafa am lo xam ne dañ ci échec te il faut ñu nangu ko. gis nga biñu ñu centre bi. centre contrôle technique bi ñu centre contrôle technique bi. Hmm. ak euh, maa ngi koy nuyu le directeur euh, Omar Thiam. seeti nañ ko ñun waa Revas ngeen baal ma ci publicité bi ànd ak directeur total. directeur marketing bi. Mm-hmm. ñu ànd vraiment dem seeti ko. am projet bu rëy foofu mooy nekk ci wetu centre technique bi oto bu panne bu dugg ci centre bi amuloo visite ñu wax la lan la nga ñëwaat boo duggee ci garage bi ñu defaral la loolu nga dugg vraiment ñu kale ci projet bu am importance. dem ministère c'est le secrétaire général bi nga xamanteni mo fa nekkoon actuellement mo nekk directeur aéroport. Mhm. mais dafa refuser projet bi ndax dafa yaakaar ni du centre bi mom mo allié ak partenaire bi fa indi fekk koko xamul partenaire bi ñun ñoko xam xam nga réew mi. waaw mais xeyna aussi. Euh, ci contrôle technique bu ñu ko défé ku ne xeyna na mécanicien bo xamné mom moom la wóolu ku nekk da ngay déllu sa mécanicien ak sa atelier. waaw Omar xëy def atelier bo xam ne ci wetu centre bi la nek Sénégal xeyna du lu gën aussi. Euh, ci gis-gis bu gàtt organisé la. Mhm. ñu yor organisation bo xam national nationale la am type de mécanicien yépp kon loolu waroon nañ ko mun am ndax avancement réew mi la centre bi am na leneen loo xam ne mu ngi fi mais lu toll ni Dakar warul am benn centre technique rek. Mhm. ba nit di ñëw du am visite ñu ne la demal ci weer nga toppatoo ko waat dañ fi war a def ay centre technique loolu lu war a gaaw la da ngay xool. centre technique bi oto yi dem di di visite technique rek. ni ñuy indee embouteillage foofu. Mhm. xam nga loolu du dëgg du yoon. mais def nañ ci ay jéego. ah mu ngi bëgg a changer ba ñu ubbi ay yeneen. centre Sénégal kenn warul xaar ba jëye ñëw. Mhm. dañu war di ñun dañu war di jiitu ci loolu. gis-gis bi yàgg nañ ko am yàgg nañ ko wax xëy na ñoom ñu ngi def ay jéego ñu ngi leen ciy sant nag di leen gërëm mais il faut mu am taxawaay bu taxaw. nit da bëgg sa réew. Mhm. bëgg sa réew bu nit ne wóor pour réew mi pour mais li ma lay wax wax la mooy fii ay pièces détachées am pièces yu baax am pièces yu bon selon borom oto bi li jënd nga dépanné c'est-à-dire daf da nga attend pièces euh, surtout de sécurité am na ay pièces yoo qualité. eta xamna lolu xam nga suma la mën a liquide frein amna liquide bo xamanteni tay boko solé day tangal coupé li da koy lakk bi dotul am frein am coupé am liquide bo xamanteni liquide bu bax la fay seddal. way yow li ngay wax ni am ay plaquette frein yo xamanteni mën nga ko monter mu yag trop am plaquette frein yo xamni soko soo monter yow bu suba nga ñew ci mécanicien bi mun la sa plaquette yi baxul sax doo ko gëm fekk rouss na ba jeex. mais sama genre yi nga xam auto tal dem yo ci mécanicien bi lañu xam. ñun bu ñuy jënd liquide frein defe naa ni amuñu ci seetlu boobu euh, comme dugg na ci réew mi rek dañuy jàpp ni ñi bàyyi mu dugg ci réew mi lu baax la ñu fi dugal euh, loolu yéen na loolu naka la mën a nekkee. mécanicien daal boo ñëwee ci moom ne ko sama oto dafa panne bu nee la pièce bi mooy original temps lay jar pièce bi temps lay jar gars yi dañuy xool rek a yomb ne la jëndal ma bii loolu moom du défaut mécanicien défaut ki nga xamante ni moom moom oto bi la. non c'est que. nekkatuñu ci problématique bi bu gën a yomb. xam nga bi gën a yomb te am qualité moom bi gën a yomb la ñuy jënd. mais li nga wax dafa indi beneen notion c'est-à-dire que boo ñu nee am na huile boo xam ne baaxul ndax amul sécurité loolu waxatuñ sax wax yomb bi lu amul sécurité waru waru fee dugg sax ba ñuy ba ñu ci am euh, tànneef. Mm-hmm. loolu moom bëri na fi am na pièces yu bëree bëree bari fii baaxuñu am na pièces yoo xam ne original la. mais li ñuy wax ak centre technique bi nañu def ay partenaires comme ni ñu ko ubbee woon ndax euh, ñun ak ñoom ñoo mën a yóbbu li ñu bëgg a régler nii ci kanam ndax jafe-jafe yi bëri na am na lu bëri ñun ñoo koy xam ndax ñun ñoo koy dund ak borom oto yi ñun ñoo koy dund ak chauffeur yi. yaa ci seen diagnostic. Euh, hmm. xëy na du seen liggéey li ngi leen war mooy oto bi ñëw ngeen lu ne ko dem def lii est-ce que am ngeen seetlu ci ne kat am na lu bari loo xam ne. peut-être mën naa doon ay défaut ci ay pièces fabrication de pièces yoo xam ne nit ñu ngi koy indi te ngeen ràññee ni yéen yu mel noonu kat bari na défaut yi fu ñu nekk ba ngeen mën ko signaler. bon Ablaye damay revenir tuuti ci euh, un peu en arrière hein. vraiment di di di féliciter Reva. ci mhm. lépp lu ñuy def hein. vraiment parce que ñoom ay partenaires techniques lañu ci ministère des transports. bien sûr et aussi di féliciter suñu mécanicien yi. Mhm. c'est très important parce que suñu indicateur yu ñu yor Ablaye daf ñuy wone ne que. Euh, ñoo ngi góorgóorlu même si nous moyen technique adapté techniques adaptés. Nous avons tax ma wax loolu euh, deux les statistique 2019, 2019. Les accidents laa lay jox accident yi am yëpp yi am amul ben auto bu centre de visite technique qui a délivrer sa visite technique mu impliqué ci ci accident zéro mm-hmm. donc indicateur est c'est à féliciter ça montre que njariñu contrôle technique am na. ça montre que aussi que nit yi buñ fa ñëwee bu ñu constaté ay défaut ñoo ngi delluwaat. Abdoulaye statistiques yi wane na. chiffres yi boo xoolee ci année bi taxawal ci fi nga fi nga doon wax. nga ne amul auto bu impliqué ci accident. amul boo xam ne. dañoo valider visite technique am mu jaar ci contrôle technique. c'est-à-dire loo bëgg wax foofu auto yi oto yi. maanaam pour dire que. Uh-huh. boo jëlee statistique 2019 accident yi am na ay blessé am na ay mort ainsi de suite nee naa la ci accident yu am ay bakkan yu fa. Mhm. zéro véhicule bu jaar centre contrôle technique amul benn oto bu jaar centre visite technique ba ñu délivrer ko visite technique am mhm. annuellement ou semestriel te mu impliqué ci accident boobu zéro donc indicateur de performance boobu dafa am mhm. solo moom mooy wane ne réussite ma delluwaat un peu chi ce que sama mu au départ une ouverture Madame lu si bu ñëwee ci ministère bi vraiment communication yu yaatu boole ci muy transporteurs yi syndicalistes mais il faut que préciser quoi. on peut pas être juste et parti. on ne peut pas contrôler oto ñu ne la frein yi baaxul waaye demal ci garage Aliou. Mhm. mu ko ah, def loolu du seen cër. du suñu cër suñu cër lan la mooy maanaam jaboote leen nan leen lii kat dafa moderne ay équipement moderne la musul am ci Afrique musul am ci Sénégal parce que visite bu njëkk visuel la woon da ngay dem falee ñu xool oto bi. Mhm. lumière ainsi lii ay machine la mais ñu accompagner leen ñu ne leen machines yi nii lay fonctionner point de contrôle lii la. li ak li ak li bo amé li fi ak fi ñu expliquer len procédure yépp ñu expliquer leen arrêté bi arrêté bi c'est publié arrêté bi amna lepp la liste de tous les défauts constatables mhm. point par point ñu def loolu aussi ba léegi nii man mi nga xam ne fi ma nekk maa ngi maa ngi sant Omar Thiam aussi mi nga xam ne moom moo démarré centre bi bañ mhm. tey ñun ñu ñu ñu ñu nekk si loolu mhm. concessionnaire automobile yëpp ñoo xam ne am nañu seen garage automobile ñu bari dañuy waxtaan ak ñoom dañuy ñëw diisoo ak ñun ñu ñëw ñu accompagner leen ñu ne leen défaut yi lii la interprétation ba tey alhamdulilah rabil alamin donc c'est à féliciter. Mhm. maintenant dañuy góorgóorlu ci loolu accompagner leen moderniser leen ah mais on peut pas utiliser parti loolu moo tax ci sama ci sama xalaat bu gàtt. Mhm. loolu moo tax euh, pas rejeter pour rejeter. Mhm. mais pour dire que vraiment on est ensemble. on fait on fait une même équipe. et puis suñu yitee mooy lépp mooy que mu am zéro accident. moo tax ñuy moderniser lépp wax nga sànq ci contrôle tenu dans toutes les régions mhm. le contrôle tenu dans les régions se fait mhm. même bu fekkente ne ci région à amul mais ñoom dañuy respecter ay normes mhm. nee naa la dafa am directive IEMA bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu que ñun ñëpp <coughs> Insha Allah taala at yëpp ñoo ngi liggéey ci programme de décentralisation, d'extension des centres contrôlés dans les régions. Et bien évidemment, Inch'Allah, avec, euh, avec d'ici la fin de l'année, nous avons avancé, on est dans les procédures. Mais, mais Yaya, tu sais une consolidation base de données. Mhm. Est-ce que vous pouvez remarquer ni a ah, auto yi di fi jaar yi yu ci bari ñu leen recalé ci défaut de freinage Nous avons dañoo bokk liquide frein pour nous jënd wala nangam bu ñu jënd wala pièce sàngam la ñu def ñoom ñëpp te pièce boobu xëy na am na défaut ba ngeen jëkk ci peut-être mën ci def ay recommandation ci mm-hmm. ministère wala ñi nga xam ne sax ñooy bàyyi pièces yooyu di dugg parce que bu ñu remarqué ni liquide sàngamkat ña koy def ñëpp dañ leen di recalé bu ñu du ñu fekk dara ci frein bi mm-hmm. xëy na bu boobaa seen responsabilité aussi signalement pour ñu jóg ci parce que liquide bu fi duggee dama jël exemple frein rek liquide frein bu fi duggee xeyna ñi ñiy usager yi bi gëna a mom moom la ñuy jëndi parce que japp nañ ni kilifa yi ko wara saytu d'accord nañ ni baxna pour ñu bayiko mu dugg ci réew mi. d'accord bon ñun euh, dañuy publier suñu statistiques. c'est mhm. le nombre de véhicules contrôlés ñi fa jaar par exemple jox la année 2019. Mhm. hein année 2019 gis nañ ne que 301 326 contrôle manam auto day ñëw ñu contrôler gis nañ ci ay défauts graves xam nga dafa bari maintenant est ce que. Euh, liquide bi la insulte. défaut grave mom défaut grave mooy ki nga xamné ne ko sa contrôle validé wu ko demal defari ñëwaat. mooy ay éléments yo xamné mhm. de sécurité routière. Mhm. té duñu la délivrer bu baax ba fondement. ok moy frein lumière ak direction. direction frein famille la ci biir freinage système de freinage dafa am ay sous éléments. Mhm. maître cylindre ba ci ba ci suuf comprendre bu ñëwé nak bu ñu xolé maanaam bu fekkente ne comme li ngay wax ni liquide bi nga ci def moom moo baaxul de toute façon machine bi da koy détecté mhm. la kulli haalin boo demee def lu baaxul aussi boo ñëwaatee du jàll donc la kulli haalin il faut il faut il faut vraiment nga def réparation yi dañuy xool plaquettes yi dañuy xool lépp ah circuit de freinage bi et tout ça hein tout ce qui va l'ensemble des éléments mais yéen eggoo leen ci gis ni défaut ah. yi ngeen gën a gis bu dee ci plaquettes yi la plaquette famille yu nangam la wala bu dee ci liquide yi la ah ngeen gis ni daal statistique yi gën naa bari ci ñuy utiliser liquide nangam loolu eggu leen ci. waaw non xam nga loolu laa la wax léegi ñun ci commercialisation euh, euh, type de liquide bi la wala type de plaquette bi non non ñun élément de contrôle bi la ñuy xool maanaam boo ñëwee inspecteur day xool système de freinage bi mu suivre circuit bi yëpp. Mhm. lu ci baaxul mu ne la baaxul demal mais doo ñëw mu ne euh, type de plaquette bi marque bi la jënd marque bi non non non on n'est mm-hmm. pas dans ça nous on se base sur la technicité Ni la war fonctionner lii réglementation bi la war a doxee ngay defee waaw Ali Abdoulaye ah. xam nga ñu ñëwaat rek mm-hmm. xam nga réew ay tali moo ko yor mm-hmm. gis nga pièces yi ñuy nit ñëw nga jëndal ko ay mu monter ko yoo xamante ni suspension mais tali du ko fa xaar da koy yàq xam nga tali bu baax. mu hmm. jiitu pièce bu baax topp ci mécanicien bi mën la ko monteel bu baax. xam nga sànq yaa ngi koy wax liquide frein dama lay wax c'est liquide bi munu loolu ñoom munuñu ko détecter liquide bi soo ko solee. Hmm. soo ko solee dafay tàng bu tàngee dafay néewloo coupelle bi oto bi du am frein mais bu dee liquide bu baax boo ko fa sottee dafay sedd. Hmm. xam nga kon matière yooyu ñun ñoo ko xam. waaye du ñoom ñoo ko xam mais pour wax la ne la nit ki bu ñëwee li tollook moom rek loolu lay jënd mais du mécanicien mécanicien xam nga lu mu am nga jënd sa pièce nga ñëw mu monteel la te am na leneen lu am Ablaye am na oto yu daw ci tali bi yu bëree bëri amu amuñu actuellement visite technique te ministre war na ci rendre compte tamit jàppale leen xam nga lu tax exemple li ñu fi boole li ñu fi boole bi non bi dafa am ñu mhm. tëj centre bi bi ñu mhm. tëjee centre bi mois yooyu yëpp am nañu seen visite technique jeex. waaw mais may nañ leen prolongé nañ. waaw non prolongé boobu. Mhm. doyul xam nga lu tax. Mhm. benn centre technique moo fi am te ñëpp mënuñu fa demandoo. xam nga bu problème amee dañu war a xool lan moo koy réglé gis nga fii bu biir Dakar bu amoon ñetti centre technique. problème yu bëri dina saafaraw ndax li ëpp fi ci ay oto fii la nekkee. da yaakaar ni am na ñoo xam ne dañuy daw ci tali bi amuñu contrôle dëgg parce que finalement xat-xat bi ak ñàkk disponibilité compte centre de contrôle technique moo leen yóbboo yëpp mais du seen mais du ci seen xoolal day am nit yoo xam ne dafay am ñoo xam ne dañuy daw war a am rendez-vous dem ci centre bi ñu xool embouteillage bi yëpp bëri ñu ne bàyyil ma dem ba suba kon loolu bu ñu amee ñetti centre vraiment dina dimbali nit ñi day dimbali nit ñi. Mhm, mhm. loolu xëy na solution long terme yi la waaw vraiment di ko ko di di ci gën a insister. Mhm. ndax oto yu bëri yi def transport ak véhicule yoo xam ne ñi ngi daw ci Covid bi dafa dafa jàpp ñëpp. délai boobu noonu ñu joxee bu jotee foofu dina fees ba kenn du fa xaj nañu xool. nan la ñuy jàppale oto yi nga xam ni vraiment ñoom ñooy def ay surtout ñiy def transport. léegi sax nee nañu sur rendez-vous la. waaw ndax euh, non ci sur rendez-vous la mës a nekk. mais oto yi nga xamante ni dañuy def transport. Mhm. comme nek tata yeeg vraiment Covid bi laal len bu Nous ñu yore ko dawal amut nit ñi amatuñ ci dara amatuñ ci dara ci fay ci fay chauffeur est-ce que yaay deug mënuñ chauffeur su pané sax mënuñu dépanner pour yobul contrôle technique dafa metti mhm. mais il faut ñom ñu ban mesure lañ ci jël. pour jàppale len mais mesure xana jëmul ci woyefal contrôle. non du ah, waxuma contrôle. mais xool nan lañ leen ni indee pour ñoom ñu am contrôle est-ce que yaa ngi dégg. Hmm. nan lañ leen di programmer wala ban temps lañ leen di mayaat ndax nag tata yi nga gis ñuy daw yëpp amul ku ci mën a fayati traite ndax ban assise rek lañ leen may amatul taxaw te taxaw mënoo fay traite mënoo fay chauffeur mënoo fay rechauffeur mënoo dépanner oto bi gis nga lii nii su continuer ba ci kanam. di nga gis tata yëpp taxaw. bon fi fi fi fii moom defe naa c'est le gars de aftu mooy wax nii mais mais c'est bien c'est bien que ñu am fii mécanicien aftu bi. Mm-hmm. bu ma dellu siwaatee ci mécanicien bi mm-hmm. Ali Sow. Mm-hmm. laaj bi sànq ma baamtuwaat ko parce que bëgg naa ñu wax ci. est-ce que waxuma garage mécanicien yu mag yi. xam nga sànq euh, yaayaa mu ngi wax ni ay partenaire ngeen. Euh, am na ñoo xam ne expliqué nañ leen machine yi parce que léegi contrôle technique ay machine la. c'est automatisé machine mooy wax ni ah. c' est lii baaxul c' est lii baaxul. Mhm. est ce que wax dëgg fa la garage mécanisien yi ñu am léeg sax mu mhm. mécanicien yoo xam ne nii borom mallette yi la rek yor seen i clé ak dépannage. Mhm. est ce que dégg nañu daaju. contrôle technique bu ñu recalé. la mu war a jubbanti. loolu ba léegi tontu woon te bëgg naa ci am tontu est ce que ñëpp dégg nañu daaj bi bu con centre de contrôle technique ne lii ak lii ak nga war a jubbanti. gars yi la ko fekk peut être lecture. Euh, attestation bi sax mënuñu ko. xam nga ñi nangu centre bi ubbi accompagner ko ñun liggéey dafa yokk suñu koom-koom. Mhm. centre bi dafa yokk suñu koom-koom ñun ndax tey balaa nit di am visite technique il faut mu ñëw ñun ñu réparer ko. Mhm. kon centre bi yokk na suñu koom-koom kon ñun ci ñu bëgg oto yi baax lañu bëgg bokk ci ñu bëgg oto yi dem ci centre bi boo seetloo Sénégal bi oto yi commencé dem ci centre technique ba léegi oto yëpp normal. Mhm. centre bi oto yëpp normal xam nga lu tax ñun màggalu Touba daan nañ dépanner lu ëpp mille et quelques véhicules daan nañ dem ba dépanner ay deux mille et quelques véhicules waaw mais li la contredire mooy exemple bi nga xam ne moo ñu fi tax a toog tey waaw non pour wax la oto bu ñëw mhm. ñu recalé ko ne ko sa lii moo baaxul mhm. mu dem ñu jàpp ni waslu na ci ax mhm. une semaine après mu dellusi waa centre technique bi ne ko non li nga defari woon ba léegi jagul Mm-hmm. xëy mom sa sax waroon retourné wu ci mécanicien ne ko mais mm-hmm. liñ mo bindal ci këyit bi ni mom ngora defar mm-hmm. pour yow defar nga ko final naa mais defar bi baaxul ko war na retourné ci mécanicien bi sax képp ku dem ci centre bi ñu dàq la nga ñew ci mécanicien bi jox ko sa këyit ni ko li lañ ma mu lire ko bu la pièce boko jëndé bo di nga am visite lolu mom man maa la ko me lima fii mais lima lay wax bo wax la moy centre bi dafa am importance ñun ñi doon dem ñun ñi dem néna la dépannage gratuit au niveau national. suñu liggéey liñ daanu liggéey liggéeyatuñ ko ndax nee naa la daan nañ liggéey ay 2000 véhicules ay 2500 véhicules ci territoire Sénégal mais dépannage bu ñu 1114 mille cent quatorze la bi ñu toogee def étude dañu xam ni oto yi jaar bi ñuy jaar ci centre technique bi dafa baax ndax lu bëri loo xamante ni daan nañ ko paan est-ce que yaa ngi dégg ñu ngi koy defar avant ñuy dem am visite kon loolu centre bi dañ koy ñun dañ vraiment kontaan nañ ci bu baax mais nag. nañu yokk seen loxo yokk bi mooy nañu am yeneen centre technique nit ñi waruñu toog hmm. fii di rang ay yenn rang yu métti yi loolu dafay indi lu ne <coughs> boobu dégg nañu ko Ali ak yeeyaay laaj bi dama leen koy boole est-ce que oto tamit mm-hmm. xanaa oto moom du retraité Sénégal fii mel na nekk oto tànk mu ngi am ñeenti ru mën nay daw exemple bi ñu fi boole tey oto bu ñu fi immatriculé 1979

jagal ko pour mu mën daw am contrôle technique mënatul nekk wala loolu wala loolu. waaw xam nga loolu dafay am oto dina toll foo xamante ni. Mhm. yow mi koy liggéey sax da nga ciy sonn ndax euh, oto bu bees ak oto bu nekk état moo gën a neexal liggéey oto bu màgget état li mu def ci tata yi def ko ci taxi yi loolu la war a def ci camion yi te mu ngi ci yoon bi mooy renouveler leen ndax yàgg nañ fi. ndax mhm. euh, am na parfois da ngay jiitleeg ay camion sax. ñuy daw. Mhm. est-ce que y a ngay xamni auto bi bo taxawé ci kanam mënul taxaw da fay am mais nous ay camions yu actuellement nous gëna a neex sax frein particulier dafa am. état vraiment comme ni mu def taxi def ko ci tataay mu ngi ci procédure nous ci camions yi. Mhm. lañ koy Sénégal mo war di renouvellement

Euh, ministère des infrastructures hein, sous la coordination vraiment du ministre Omar Youm je vais euh, juste rebondir un peu sur moi. Nous, tali mhm. euh, ministère des infrastructures et des transports Je Birum tali daf ñuy concerné yow sama gis que vraiment que du point de vue infrastructure nous avons avancé bu et c'est ce qui justifie même accident yu bëri am amoon ay mhm ndax tali yi macha allah mm. wax dëgg yàlla et puis aussi ministère bi vraiment l' du Sénégal euh, mu ngi ci liggéey bu baax baax di ci avancé loolu moo indi aussi pour wàññi circulation yu bari les transports de masse c'est nga ko sànq le TER le BRT et puis les projets vraiment avancent vraiment à grande pas concernant ci âge exploitation bi li ngay wax ni mag effectivement euh, ci processus boobu la ñuy nekk yéen ñëpp dégg ngeen euh, présentation loi d'orientation des transports Bien avons voté l'Assemblée nationale et ministre et l'équipe équipe bi yëpp vraiment pour que mettre en place hein, des décrets d'application. application loolu bu incha allah bu ñëwee dinañ ko définir Nan manam bi Abdoulaye pendant tant d'années, mmh. dina dina dina taxaw mu dem ci euh, produit gaz mais aussi damay delluwaat un peu def nañ ci ay avancées yu le projet de renouvellement euh, des, des cars rapides et de Ndiagandiaï, mmh. avec le projet AFTO. Mmh. Mais ça, c'est des, des, avancées positives tay ñaata ta ñaata auto la ñuy renouveler qui modernise le contrôle le le le le système de transport au Sénégal ñoo ci avancer mm-hmm. les camions camions yu bari ñoo doon daw amatul. parce que projet de renouvellement des des des parcs de gros porteurs avec euh, avec euh, avec le président de la République def nañ ko auto yaa ngi daw. ñom yooyu mm-hmm. yëpp bu ngeen xoolee ciéb yu ñu doon yeb yu ci ci auto yoy la. ñun au niveau du centre ci camions yi ñu doon recevoir c'est très rare légui nga gis ay auto yu màgget le pourcentage est très très très très très très faible. Il y a une circulation de camions suuf non non je dis pas que non non je dis pas que que interpeller ministère mhm. nañu mhm. ñi nga xam ñoo am parc yi. Mhm. ñu renouveler gis nga ñu am benn ñaari danger gis nga bu ñuy def renouvellement ci lépp lu mu mënti doon muy taxi muy camion muy lu mu mënti doon ñi nga xam ne ñoo am ay benn oto ay ñaari oto ñooñu ñooy dem ba duñu mën liggéey seen oto ñi nga xam ne dañoo am parc bu mag ñooñu mënal nañ seen bopp lépp nañuy sóoraale ñooñu ci renouvellement yi. ah mais camion muy taxi muy ci lépp quoi. xam nga la mm-hmm. loi li li li Ali wax ci processus boobu la ñuy nekk. Mm-hmm. avec la loi d'orientation des transports dinañ ko gën a encadrer parce que ce qui wax que gis transporteurs 100 000 chauffeurs Tout qui ci ak loi d'orientation bi wax encadrer moderniser créer un fonds Ce ñun ñëpp dégg nañ ko créer fonds renouveler parc renouveler donc ci processus bobu la et processus bobu buñ ci yeggé que day ligne de defoon ak gros donc incha allah. ci mhm. procédure la et puis ñu ñaan yàlla ñun et puis si c'est boobu day ànd xam nga moom moom moom wax na léegi lu am solo donc ci loolu la dem allah. et puis mhm. ñun ñëpp ñu gën a ñu gën a sensibiliser aussi. Euh, mhm. euh, ñuy dawal. que ñu xam contrôle technique c'est pas une c'est vrai mais ku indi otam contrôle technique pour yow nga def parce que yow yaa ci yëg ak sa donc nañu respecté contrôle technique et le contrôle technique aussi je précise c'est à la santé. Mhm. at lañ lay jox mais ci biir at boobu yëpp. mais il faut que nga gën a góorgóorlu di def ay entretien régulier di yobbu nga xal na vraiment di nga sauver sa bakkan sauver ñeneen yëpp ñu ci sensibilisation. question bu mujj 30 secondes malheureusement euh, waxtu wi xoj na renouvellement boobu xam nga am na loo xam ne aussi ku wax lii wax la ca des. Mhm. Euh, professionnel lañ doon wax ci parc yeeg auto yi nga xam ne ñoo nekk euh, voilà ci marchandise yeeg yooyu mais. <laughs> parc privé yi particulier yi oto yi ku ne xam na ni nit ñi daanaka tu tuñu wala sax ku jënd sa oto bu bees tamit oto ba nga yoroon mu ngi ci tali bi ba léegi oto yooyu di gën di léeg-léeg clando ni ñu ko waxee mooy oto ba nga xam ne nii dem nga ba soxlaatoo ko nga teg ko ci clando mu yeb ay bakkani doomu aadama bu dul oto yi mag yi oto yi ndaw yi tamit dégâts yi bëri na te xam nga loolu duñu wax renouveler ndax kenn du renouveler ab particulier oto bi nga xam ne mooy oto boppam loolu lu ciy pexe euh, Revaas ah nit ki am otoom. Uh-huh. moom ko yore ko amul lu dul dépanner otoom waaye nag comme li nga wax oto dina toog durant boo xam ni waratul daw loolu état moo si jël ay mesures. yaa techniquement techniquement moi je pense véhicule particulier personnel. Uh-huh. wax na ko catégorie boobu véhicule particulier personnel. Uh-huh. yooyu yaa moom mais techniquement oto dana dem ba jëmi jamono ñu lay wax dëgg fa yàlla oto bi retraité na nga koy daw. di ci dawal. di ci yeb sa njaboot. xam nga ni auto bi am na 30 ans. waxuma ni voiture de collection de ah, mais vraiment am na oto bi 30 ans. na am benn moment boo xam ne mën na am 30 ans baax de. bien ah, sûr poosu nit mooy màgget mais auto du ah, màgget. effect je suis d' accord. ci mhm. organes yi la. Mhm. mais pour dire que processus boobu mhm. ci il faut ñun ci loolu la ñu nekk di gën a sensibiliser. et nit yi aussi Abdoulaye même si seen oto yi màgg nañ ñoo ngi toppatoo wax nañ ko parce que indicateur bi ma la jox sànq wane na que sénégalais. yaa ngi toppatoo seen oto sénégalais y a def visite technique sénégalais yaa ngi def yaa ngi def euh, euh, euh, vraiment entretien li ci war donc ñu devons vraiment sensibiliser ñu daw donc, daal ndànk vraiment nous topato suñu auto yi ba wañi accident yi yu am yi ñun lool moy suñu suñu objectif lool moy objectif ministre des infrastructures zéro accident ñu accompagner ñep vraiment ñu ñuy sensibiliser ñep ñu gëna dal waaw topato auto yi même boo amé visite technique de temps régulièrement da nga wara xol sa auto nit sax ci bopam de temps en temps même boo feebarul da ngay dem hôpital. nga xool sa yaram c'est la même chose oto organe la. ay yor day fonctionner dina am benn moment boo xam ne day lâché donc vraiment ñu gën a bàyyi ci xel ñu gën a toppatoo oto yi ñu gën a sensibiliser. jaajëf yaa Ali en une minute ah taxulaa ñu waaye foog ñu wax ci xam nga gouvernement bi jógee na ay programme yoo xam ne pour ngeen gën a. xarañ la mhm. ndongo yi nga xam ne dangeen leen di yor aussi ngeen gën leen a ñaax ci liggéey bi mhm. ñu koy wax apprentissage mhm. c'est-à-dire loolu est-ce que euh, yoon wi ñu jël yoon wu mucc ayib la pour que mu mën a am njeexital boo xam ne lu baax la ci ñëpp daal cest à liggéey bi gën a yemb euh, nit ñi gën a professionnel encadrement bi aussi gën a professionnel PGA bi ci ni ñu ko taxawalee gum gis ngeen ci seen bopp mécanicien parce que bokk ngeen ci corps de yi dugal leen ci jàppale leen ci wàllu apprentissage ak maître apprentissage. Mhm. waaw ci li nga waxagum rek ci programme ñun dañuy remercier ministre de l'artisanat ndax bi mu ñëwee vraiment jox nañu ay matériels yoo xam ni matériels yu xarale la pour euh, former ci ouvriers yi jox leen ko ñu ciy diagnostiquer oto yi mais projet Paja bi projet trente milliards la feebar am ñu jël un milliard huit cent pour dimbalee ko artisan yi ñu ne sept mille artisans yi nga xamante ni. bind nañ leen war nañ leen envoyé kenn ku nekk benn cent cinquante mille ñëpp ñu ngi siy jooytu ñëwagul. waaw loolu ñu jël si cent millions dañuy ñëw ay masques. masques yeeg yëpp nit ñu jot nañ mais dama lay wax ni projet bi dafa am problème deux cent cinquante mécaniciens yu nekk Dakar duñ ci bénéfice ndax inscrire nañ def li ñu war a def yëpp ñu fàtte seen i dossier ci chambre de métier bu Dakar kon loolu su amee. photo administration la fàttali ak li tax mënuñ ko jëli non nee nañ wala date bi passé yi mhm. dafa nekkoon ci maalu secrétaire général te secrétaire général bi nee na nekkul ci maalam xam nga cent cinquante <laughs> personnes nga bëgg leen sacrifier ci projet bu toll nii loolu am na problème eh, maa ngi interpellé ministre bi di interpellé président de la république di leen wax ni nag projet bi vraiment na ci président gën a xoolaat mm. gën a xoolaat ndax am na yu bëri yu ciy am te waru cee am. <laughs> madame Doucouré dana dellusiwaat. waaw ndax déedéet xam nga coordonnatrice projet bi. non kooku il faut nga woo ko fii nga woo ma ndax problème yu bëri am na ci projet bi. bon ok monsieur le ministre de l'artisanat nga yónnee waat ñu euh, madame Doucouré yombalal ko mu ñëw ah comme fonctionnaire yi affaire yi circuit dafa metti ñoom yaayaa sax boo leen di invité ñu tàggu ministre bi ak yooyu maa ngi leen di gërëm vraiment dafa am suma benn xarit cheikh bi ah daf may déglu nee na ma bàyyil di ñedd temps bi

mën waaye soxla na ndimbal lool ñetti xale yoo jël fii ci Sénégal ñaar ñi dañoo am feebaru manqué deret benn ci sabab bi koy indi mooy manqué fer ci ñam yu ñuy lekk coono ak ñàkk mën a teewlu mandarga yi wane ni sa yaramu doom amul fer te loolu mën naa tax du am résultat yu baax ci ñàngam kaasu meew Nestlé Gloria bu nekk dañ ko dooleel ak Nutriforce bi nga xam ni mooy jox sa doom fer ak vitamine C bu mu soxla ngir am wérgu yaram bu ne keng ak xel bu ñaw lool jox leen seen njaboot wérgu yaram bu ne keng ak meew Nestlé Gloria bu ànd ak Nutriforce Brille avec les diabatés, brille avec les stars. Regarde leurs basins, on les voit de loin, magnifiques. C'est quelle marque déjà Dreus Riche Bazin, disponible dans les boutiques les plus exclusives tout près de chez vous.